jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene dellu siwaat nuñ koy defee ay bés bu nekk di leen dégtal li nga xam ne moo di seen chronique tey nag seen chronique dañ koy jagleel benn banqaas bu nekk ci réew mi te ñu jàpp ne jamono yi dafa nërmeelu lool mu di lan wàllu justice jamono yi kenn umpalewutul benn mbir ne justice su Sénégal mi ngi ci crise bu rëy rëy rëy crise boo xam ne waxuma sax gis-gis bi ci sénégalais yi am ak na lañ jàppee seen justice waaye ña nekk ci biir doon ay juge ay magistrat ay avocat ñépp ñu fay liggéeye ñu ngi yëkkati seen kàddu di ko jëmale ci kaw ngir ŋàññ bu baax a baax a baax nu justice du doxale mu mel ni suñuy wax ne lii di république dafa séparation des pouvoirs pouvoir exécutif incarné par le gouvernement le président de la république le pouvoir législatif nga nationale et le pouvoir judiciaire bu wax mel kuy d'accord ne ci Sénégal pouvoir exécutif bi na tànkam pouvoir législatif pouvar judiciaire te damay faral di wax ne lii di justice bu normale ci réew mi rek ñu sànku te nag crise bi yegg na foo xam ne lu ëpp tuuru soo xoolee bu baax a baax ay nit ñi ngi génn di wax nekk ci biir justice bi li tax nag ma fas yéene ci wax tey jii moo di convocation bi ñu def Souleymane Teliko war ko à ci conseil de discipline bu conseil supérieur de la magistrature waaye laata loolu fàttaliku leen ci fan yee ci ginnaaw juge Ibrahima dem nekk ci biir conseil supérieur de la magistrature dafa teewal ay ñoñom magistrat yi dafa bind benn bataaxal yónnee ko njiitu réew mi ne day démissionner ci conseil supérieur de la magistrature wax ci biir lettre boobu lu tax mu fas démissionner nous avons dafa gis lu ko jommal lu ko conseil supérieur de la magistrature dafa am benn procédure boo xam conseil supérieur de la magistrature ñu dëppee ko consultation à domicile maanaam dem gis ay magistrat waxtaan ak ñoom ngir fal ci yenn poste te poste conseil supérieur de la magistrature mi nga président ñoo war a toog waxtaanee ko mu leer nañ waaye nee na gis na ba mu nekk ci conseil supérieur la magistrature ba tey jii lu weesu juróomi yoon def nañ ay consultation à domicile maanaam dem waxtaan ak ay magistrat ñoom jël leen nommé ci post mu ne nomination yooyu nag amul transparence leerul respecté wul principe constitutionnel de l'inamovibilité du juge mu wax ko ci biir lettre am te ne lu ko gën a jaaxal moo di naam bu nu nangoon a consultation à domicile may nañ ko conseil supérieur de la magistrature exception la war a doon maanaam waruñu ko jël léegi def ko règle te mu seetlu na ci biir conseil supérieur de la magistrature dañ ko def léegi règle dootuñ toogati daje mu leer nañu ñu xam kan la ñuy fal ak kundul fal déedéet dañuy xool seen magistra yu leen neex Yo, xamne ñom ñoom mën na leen defloo magistrat yoy lu leen neex ñu dem def consultation à domicile fal ñooñu kenn du yëg kon kay juge Ibrahima dem amal laaj bu am solo ne conseil supérieur de la magistrature lan moo di njariñam jaratul muy am comme conseil supérieur de la magistrature dafatul ben réunion ñom dal ministre bi moy toog fele jóg def consultation à domicile xool benn magistra nommé ko nomination yi nga gis fii yëpp noonu la demee mu nekk nag crise bu rëy rëy bu am ci biir conseil supérieur de la magistrature toj li nga xam ne moo di justice kuy waxal yàlla te yàlla tax te mu nekk dëgg moo di justice bi sax fi mu nekk ni crise bi dafa dem ba ñu bëree bëri jàpp nañ ne amul benn transparence ci tànneefu magistrat yu ñuy takkal ndombay tànk loolu juge Ibrahima Dème bind na ko lettre jox ko laata loolu fàttaliku leen ci procès CREI yi ni ñu dàqee woon procureur Aliou Ndao pleine audience rajo yëpp ubbi ne dàq nañ procureur Aliou Ndao lan lañ ko dàqee woon parce que jël na ay dossier CREI yi naroon ko yëkkatiwaat teg ko ci taabal bi ministre de la justice d'accordu ci ñu mun a dafa dëgër bopp te moom ñu sant ko liggéey jox ko turu ñaar fukki nit ak juróom na ko nga leen war a topp mu nekk toroxal munul weesu ali ndaw nu mu sonne woon ci li nga xam ne moo di cré yi luñ ko yàkkul ci cré yi dafa amul lépp wax nañ ko ko ŋàññ ko moom fulla ak fayda taxaw ci bi taxaw ba procès karim wadd di am pleine audience ñu woo ko téléphone ne ko yow lu xew xanaa dàq nañ la nekkatoo procureur spécial bu cré yi ba muy génn militant Karim wad ya nekkoon sal da doon tàcc du yuux ndax ñom déggoon nañ mbir mi fàttaliku leen ci pleine audience le ben assesseur suméku démissionné kon ku waxul na justice bi nekkul ci crise da ngay wax lu la neex crise bu rëy rëy moo nekk ci justice bi juge Ibrahima Dem dem na ci ba wax sax ne am na yenn dossier nuñ koy traité day gën a mën a may dëgg ñiy wax ne justice bi dañ ko instrumentaliser caporaliser ko di ci def naka sudul noonu bari na ay dossiers yu doy waar ci dellu siwaat dossier Lamantin bi ci drogue bi joxe ñi ay liberté provisoire te ñu jàppee leen ci ay ñawtef yu rëy rëy mu nekk lu doy doywaar yoo xam ne kenn mënu koo natt te jii su ñuy wax ne ay décisions yu bizarre yu justice bi di jël waxuma sax si dossier bu mujj bi mooy dossier yi kii nga xam ne moo di xalifa Sall kuy waxal yàlla te yàlla tax. tey jii percepteur yooyu ñu bàyyi jox leen contrôle judiciaire teguñu ko fenn ndax en matière de détournement de deniers publics auteur principal ak complice article bi dafa dal seen kaw ñoom ñëpp mandat dépôt la ñu waroon dem ñoom ñëpp mandat dépôt. nin dugalee xalifa Sall ci biir kaso bi lan waroon dugal percepteurs yi ci biir kaso bi dama ciy waxtaan ak sama benn xaritu magistrat mu ne ba ñu dugalee xalifa Sall ak ñoom Mbaye Touré ci biir fi nga xam ne moo di kaso bi mandat de dépôt placé ay percepteurs yeeg yooyu sous contrôle judiciaire ñoom ba ñu yeewoo la matin dañ daan wootante seen biir di xaqataay di ree di wax ne xanaa dafa am texte yu bees yoo xam ne ñun amaguñ ko ndax article bi jëm ci li nga xam ne moo di détournement de deniers publics auteur ak complice yépp mandat de dépôt la auteur principal bu cautionné mën nañ ko bàyyi mu dem kon loolu day wane ne politique am na ci li nga xam ne moo di ci traitement judiciaire dossier boobu lu tax bokkum moom ci boppam mooy yor kees bi nga xam ne moom la ñu denc kopparu projet PSE yëpp c'est ci APR looluy deug Ibrahima Touré bokum moko fi ba ne bu ne percepteur yi nga xam ñenen la kudul bokum ak Ibrahima Touré ngi kaso lolou moy woné politique amna ci dossier bi li ci bir nak dossier bi wax toujours ay avocat Khalifa Sall nañ ko ak juge yi lu luñ koy topp lu luñ koy tuumaal duma ci sori waaye dans le traitement article bi yóbbu xalifa Sall mandat de dépôt même article boobu moo tegu ci kaw percepteurs yi teewul percepteurs yi comme dañoo bokk ci APR bokk ci wàllu politique di dugale nag génne ñu def ko lan xaritoo tamit ak ñu baree bari li ñuy wax xam nañ ko bokkum xarit ñu baree bari la ñu def place ko sous contrôle judiciaire bàyyi leen ñuy dem lolay deug kon bu nekkee ne décision yooyu day am suñu xel day teey ne est-ce que sunu justice bi li ñepp di ñort ñepp di wax n'est pas une justice instrumentalisée tey jii Souleymane Téliko dañ ko wo ci conseil de discipline conseil supérieur de la magistrature lan lañ koy topé ñu violation secret délibération ak incitation assemblée UMS tay ma solal ko robb avocat man mi ndax violation secret délibération amu fa ndax consultation à domicile lañu def secret délibération kay moy conseil supérieur magistrature andon tok ba ñu def délibération ñu ne dafa violer secret bi déedéet mom dafa représenter magistrat ci bir conseil supérieur de la magistrature mu wara a xamal union des magistrats du Sénégal na ah conseil supérieur de la magistrature de def na consultation à domicile du sax réunion ba bëgg na jël tab fal ñi ak ñi ak ñi loloy rëram moy informer ñi nga fa yabal parce que mom ndaw la bu ñu yabal ci conseil supérieur de la magistrature ñu une incitation l'Assemblée générale union des magistrats du Sénégal képp kuy magistrat bokku ci union des magistrats du Sénégal am nga droit sàkku ñoo des magistrats du Sénégal def ndaje motiver nag lu tax nga soxla ndaje moomule tey jii timit lenn war nañ ko wax magistrats yi ak juges dañuy wax dañ leen di attaqué procureur mi ngi wax ne wéy dootuma nangooti ñuy attaqué justice kenn attaqué wul justice seen bëgg-bëgg la Sénégal yi yëkkati ci kaw di jàppale ndax nee naa leen mosoo leen def assemblée général ba jeexal te ci biir communiqué bi Sakou len indépendance de la justice yéen ko wax indépendance de la justice y'en yéen ko wax amul leul bo len def sali ba nopi te ci biir communiqué bi ko te jamono yi dafa melni UMS dafa nasay UMS bu Ali ñaan ba muy defanteeg Cheikh Tidiane Sy UMS yi fi gisoon amnañ ci taxaway bu mat ba tey soo xoolee union des magistrats du Sénégal am jeune magistrat yi nekk bëgg la révolte bëgg la révolte xeex ak nguur gi pouvoir exécutif na nag lopp tuuru lii nag suñu sutura la bu wax kay kuy mokke justice pouvoir exécutif la xëy ñu fi fii indi projet de loi tànn yenn kilifa yu nekk ci wàllu justice ne dañuy âge de retraite IMS yuuxu fi yuuxu fi teewul lan la exécutif def dem conseil des ministres ñu entraîné na ko mu yóbbu ko assemblée nationale ñu voté ko est-ce que buñ leen wegoon ca dëgg-dëgg respecté leen ca dëgg-dëgg ne dañuy jël décision boo xam ne day concerné ñi nga xam ne ñoo ji magistrat yi fa dëgg neex yàlla lu doon jaadu ba jaadu nit kay boo ko jëlal décision xanaa di nga waxtaan ak ñoom ne leen man de lii laa gis lii laa bëgg a def ndax ànd ngeen ci. waye nga tok jël ci décision union des magistrats du sénégal ànduñu ci def assemblée générale fan la mujjé fenn wul fenn kon kay bu nekké né amna ñu wégul respecté wul justice bi joxuñu ko gëdd ci dëgg-dëgg pouvoir exécutif bi la kon union des magistrats xam ngeen xex bi ngeen wara def xam ngeen taxaway bi ngeen wara def ndax jeune yi bëgg révolter ci biir union des magistrats du sénégal bari na lool dama ci waxtaan ak juge yu bari magistrat yu baree bari waye luko bloqué moy mag ñi nga xamné ñi ngi biir ci union des magistrats du sénégal am ay position carriériste bëgg jéxal sen retraite jëm ci retraite bloqué lepp waye indépendance nak nit mo koy may bopom, mu la fi néna be, bukki bu yebee waxambaane ci doxin wala bukki bu yebee waxambaane ci doxin wala président blay wade lu fi mësona wax gaay di ko ngagne Nous avons dañuy wax de la justice indépendance de la justice waaye buñ koy day maître ak esclave maître mën sax esclave bi demal waaye esclave bi day dem ba dox rek man bëgg sa indépendance bi da ngeen ko da ngeen ko de ndax amul kenn ku yor la vocation naturelle d'un homme qui est au pouvoir c'est de préserver et de conserver son pouvoir par tous les moyens waaye sénégalais yi nag dañuy am yaakaar lool ci juge yi ndax bés bu nërmeelu la jamono yi dañ leen di jàppale pour justice bi jogat ndax nërmeelu moom def na ko ba noppi li fa des ak néew koy la ñuy bëgg a defaraat ànd ceeg juge li ndaw yi nga xam ne bëgg nañ am seen liberté lii Souleymane Teliko wax lii Ibrahima Dem wax est ce que ko xam kott ko xam magistrat yépp ko xam waaye ñoom ñoom fulla jeeg fayda ji nag dénoncé ko naam ni ñoo dem magistrat du sénégal nee na ñu ngi leen di jàppale ñi ngi xaar ba xam fa lay mujjee ci waxu dialogue bi nag kàddu yi rek lay dénk président de la république di ko dénk mu xoolaat njabootam mu xoolaat wax ak kàddu yu am solo la sunu mam ju baax ji mam abdaziz si da baax yëkkati woon ñépp di ko dégg ñépp di ko dégg nag moo ca kaw ñépp di ko dégg koy dénk njiitu réew mi di leen sant di leen gërëm leen dig dajee seen beneen chronique seen site dakarmatin.com incha allah. kenn yóbbu sa bopp wàcc li ci des. bu kenn yóbbu sa bopp wàcc ñi ci des. bu ñu tëju ak wax ak moom ba noppi génnaat. waaye bu nu ànd joog moom wax ba noppi naat naan ko président ker kersaama ci yóbbu waaye ba bokk ma ci. naan ko président jataayu keroog ba kat kersaama ci yóbbu waaye man bokk ma ca loolu du dëgg. du dëgg nee na du dëgg. te lii jaar ci réew mi nañ ko ko wax carrément. te nee lii xew ci réew mi nañ koy wax moom réew mi carrément. Abdou it na jàpp ñi nga xam ne ñoo koy wax dëgg taf ci boppam. Abdou itam ñi ko nangoo wax dëgg ñëpp na leen jegeñal boppam. képp koo xam ne kii soo ko waxee sa bopp nga koy wax wala nga bëgg ko boole nit ñi mu déglu la bañ la ñàkk dégg képp koo dikkati ci moom di ko wan sa bopp wala boole koog nit ñi na la déglu naam waaye boo ko wanee gannaaw na wacc la nga ko waxoon mu ubbi buntam parti fi nekk yépp su mënul woo ñëpp it moo chef de parti ñu seet dañuy waxtaane na ubbi buntam woo chefu parti yépp yépp doonte peuple yépp neexuñu woo it mu wax ak kilifa yi